الأبرار في ناسي سنة التي بها أهتم taalibe yi ñu ngi fii euh, ci caravane Ila Touba di waaj màggalu Touba gi ñu ngi ko commencé fii ci boo maraîcher dinañ seet ñépp ñi nga xam ne ñoo ngi dem Touba wax ak ñoom saafonte ak ñoom ñu wax ñu. nan la ñu dundee bésu màggal gi fii ba màggal gi nag Bichri TV noonu la koy defee dinañ dem jaar ci dëkk dëkkaat yi xamale leen ak dëkk yooyu yëpp balaa ñu egg Touba. Mm, dinañ saafoon teg taalibe yi ci yoon bi ñu xamal ñu nan la ñu dundee màggaluk Touba gi dinañ jaar Diourbel jaar Mbacké ba egg Touba caravane ila Touba daal dara du leen ci rëcc ci màggal gi ak Bichri TV mbokku taalibe yi ba tey seen caravane ila Touba ak Bichri TV ñu ngi fii ci garage boo maraîcher jàkkaarloog sëñ bi di Cheikh Ahmadou Bamba Sow mu jànkatu xasi dañu bëgg koo ñaan mu yëkkati dara ci xasaayitu sëñ Touba yi borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Njaareem Seexul Xaadim Seex Amadu Bamba ana soppay Serigne Touba jàmbaar ja màggal gi màggal gi laa leen di xibaar yi xamul te di xiyaar te nara di fa siyaar ngir jëmbi Ahmadul Makiyoo màggal gi laa leen di xibaar yi xamul te di xiyaar te nara dem di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul Mbakiyo xalifa ba nga fa nekkaam sidi sidi Muxtaar te mosta lekk lu araam Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke te mosta lekk lu araam gannaaw Muhammadul Mbakiyo jumaa ja mooy Baytul Haram ci soowu jant nan di demul torox fa saam doo seero Mbakiyo jërë ngeen jëf waaw jàng mi leer na naa ñu neex na torop sëñ bi ñu la doon laaj rek mooy da ngaa jëm waaw ñun nag xam naa ci kanam la ñuy dem waaye ñu ci wàccaay wi mm-hmm. waaye ñaan yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir doomu Serigne Touba moo ko joxoon ñi faral dugg ci oto yi voyage. moom nga yor waaw moom laa yor indil ko waa garage bi daanaka saa bu ñu xëyee rek fi la ñuy xëy waaye njàng mu xasida yi moom mooy suñu métier mooy suñu lépp waaye di ci dimbale jaamu yàlla yi te xam ne Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne tubaa moo ko joxoon ñi dugg ci oto yi moo waral sax non dañ koy jox rek te yàlla tax lu waaye am yéene te mën ko barkeeloo baax na ko amul sax def nañ ko addee Serigne Touba na solo di sàmm ñi nga xam ne dinañ dugg ci oto yi. mbaa paas yi cher wu noonu tam jëm Touba. ah paas waaw xaw naa cher nag moom waaye waaye lépp sëriñ bi la rek. waaw ah, chauffeur yi de nee nañ ñoom yokkuñu daal. waaw ah, ñoom yokkuñu daal xanaa ay 2000 francs 2500 moo fi ne. waaye daal buñ ci defee xéwal mu baax ndax sëriñ Touba moom. Ah, lépp lu waa lu ko waay defal rek doo ko rëcc. murid yi moom lu mu cher cher dinañ dem ndaxte sëñ bi jaral na leen. waaw bu doon 1 million sax barki sëriñ Touba dañuy daal jël la ci banque ba yëpp dem ak moom ndax Sëñ Tuubaa jaral na ko ndax Sëñ Tuubaa dane malaka ni dunya wax rasamadu maahindoo lextaaroo Muhammadu suñu borom moom loonu ma àdduna ak àlaxira ndeysaan kon nag kon koo xam ne suñu borom moom loonu ko àdduna ak àlaxira borom boo ko joxee te wax ne si maamu la raxasi da dalay fiyee di omaarum taxoo bi maliki xaar bin andi suñu borom moom loonu moo réew mindeef yëpp kon nag koo xam ne loolu yëpp suñu borom jox na ko ko lépp loo xam ne jël nga ko delloo ko rek da nga ko delloo fa nga war a delloo waaye Sëriñ euh, la yërmande kese la lu ko waaye defar rek doo ko réccu. jërëjëf sëñ bi Bichri TV mi ngi lay ñaanal màggalu jàmm. kooku boo ko saa su nekk war a sonn war a noppalu dañu fàttali rek bu départ fi jëm Touba na jàpp ni benn bis la ci Sénégal gàmmu am na guddi yonent Yàlla Muhammad la. waaye Sénégal gépp ay gàmmu waaye màggal moom benn bis la koy foo ci mun Touba la jëm kooku benn bis ci Sénégal nañ ko bàyyi xel bu baax benn bis la entier ci Sénégal ku fa jëm di nga waaj lu nekk waaye li gën ci safar daal mooy noppalu ba noppalu mooy bénéfice sa oto ba mu baax mooy ngay daw ndànk mooy double bi ak wàcc bi te respecté autorité yi bu ñu wàcc bu ñu yëngal tërëb ñu xam ne suñu jàmm lu ñu bëgg kooku maa ngi koy xam a ngi ci ba leen réer dama ne yàlla bu ñu dégg benn instant su noppi bu ñu dégg yàlla dégg pan waaye yàlla bu ñu xam ne instant mel ci barke yonent yàlla Muhammad salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimih wa basirhu bi kulli harfin min hurufi hadihi alqasaid almuxrajati min xamadihi kalahu sallallahu taala alayhi wa sallam wa baraka amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla bu dara dox mën a dox suñu digg Sëñ Tuubaa yàlla nañu Sëñ Tuubaa nangu yàlla nañu Sëñ Tuubaa nangu yàlla nañu Sëñ Tuubaa teel boppam saahiran wa baatinan ba tey mbokku taalibe yi ñu ngi fii ci jam Diamniadio nag pôle économique bu am solo la ñu ngi fi tabax euh, euh, future université bu am solo nga xamante ni ñëpp xam nañ ne université Cheikh Anta Diop xajatu étudiants yëpp xajatuñ fi Diamniadio nag dina am benn future université boo xamante ni nii képp kuy étudiant rek di nga fi mën a nekk nekki noonu am na centre de conférence Abdou boo xamante ni francophonie bi passé boo ko abrité woon mu nekk centre bu am solo boo xam ne taaru na lool macha allah. Diamniadio aussi dina am yeneen i tabax yeneen infrastructure yoo xamante ni nii dina nekk lu taaru loo xamante ni nii comme dakaar dafa nekk ville bu fees dina nekk loo xam ne ni nit ñi dinañ fa mën a dëkk ci jàmm ak ci salaam seen caravane Ila Touba nag euh, mu ngi fii di saafonte ba tey ak mbokku taalibe yi nga xam ne ñoo war a dem Touba dara du leen ci rëcc ak Bichri TV ni ñuy def rek mooy xool mbokku taalibe yi nga xamante ni ñoo war a dem Touba ñu saafonte ak ñoom ci jàmm ak si salaam jërë ngeen jëf. ba tey mbokku téléspectateur Bichri TV ñu ngi fii si jam ñaajo ba tey den ak benn soxna boo xam ne dafa bokk si ñu fi jaay ñu bëgg laaj moom tam nan lay dundee màggalu Touba gi leen soxna si ñu ngi ziar. waaw ah, yal na yàlla nangu ziar soxna si. tur bi nan la. tur bi kurandooy la. ñu bëggoon a xam kañ nga fi commencé jaay fii ci jam Diamniadio. fii ci Diamniadio si i màgg gi nii laa commencé ñoo di jaay si. mbaa jaay maa ngi dox. jaay mi waa mi ngi dox ndànk-ndànk. ay yàlla ngay jaay exactement. man clémentine laay jaay. waaw taalibe yi ñoo ngi commencé ñëw. taalibe yi moom ñu ñëw bu baax a baax. looy ñaanal mbokku taalibe yi nag ci màggal. mbokku taalibe ñu leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam rek bu ànd ak xéewal waaw dem ak jàmm dikk ak jàmm yow màggalee goo kon da ngay jaay ba xaw am dara doo. waaw jaay rek ba ñu suba la màgg rabbi ma soog dem Touba bu neexee yàlla. waaw jërëjëf Bichri TV mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. mbokku taalibe yi ba tey seen caravane màggal gi Ila Touba ak Bichri TV ñu ngi fii ci Pout Pout nag xam nañ ko ci activité commerciale am bu am solo ndax fii bari na ay tool bari na ñu jaay ay fruits clémentine mandarine yëpp loo leen bëgg rek boo leen egsee fii ci Pout di ngeen ko am naka noonu nit ñi commencé nañ ñëw di fi dëkk si ba tax na ñu fi gis ay kër yoo xamante ne nii kër yu bari la te bu njëkk amu fi woon mais léegi nit ñi commencé nañoo xam Pout commencé nañu fee dëkk si seen caravane màggal nag nii la koy defee ak yéen fii ba Touba dëkk dëkkaat bi ñu romb dinañ leen xamale ak ñoom Pout la ñu nekk ñu bëgg a waxtaan ak ñi fi nekk rek xam activité yi nan lay doxee fii ci màgg jëm màggalu tuubaax bu ko defee man maa ngi tudd Madiagne bon kàddu gi may jël nag maa ngi koy jël ci turu euh, gérant station bi ñuy wax Moussa Gueye yéen a ngi ci station Ciel Wal bu puut xam naa bu ko defee dañuy wax rek ne euh, li nga xamante ni moom moo jub ci wàllu euh, màggal gi li ñu ci mun wax mooy influence dina am à chaque fois màggal am wala gàmmu am ngeen gis ne ci station yi day am affluence. Euh, ba nga xamante ni lépp loo xamante ni lii ñu ngi ko fiy def comme activité dañuy gis ne day yokk tu day yokk day yokk bu baax a baax euh, boo ko defee ci wàllu li nga xamante ni moom mooy euh, gar carburant bi nga xam ne moom la ñuy jaay fii dañuy gis ne également dina am yokkute effectivement ba ta tax na également que ni boutique bi aussi dañuy gis ne li nga xam ne moom moo nekk ci boutique bi aussi lu ci bëri période màggal daal la ñu gis ne pratiquement Euh, day am euh, day am benn montée bu baax boo xam ne da koy def ci chiffre d'affaires euh, li ko waral man damay wax sax ne affaire bi nekkul rek ci station yi mais ci Sénégal la dans son ensemble parce que bu amee màggal Touba boo ngeen gisee ne màggal Touba fois màggal Touba am di ngeen gis ne sur le plan économique yeneen gox yi yëpp pratiquement day am tuuti blocage li ko waral mooy mbokk yi ñëpp dañuy fëx aw yoonu Touba waaw économie bi rek pratiquement lépp day dellu biir Touba bu ko defee xam naa loolu rek la ñu amoon comme kàddu yoo xam ne nañ leen ko wax ci wàllu màggal bi fii nag dinañ am ay taxawaay yoo xamante ni dinañ ko def ci station bi di jàppale mbokk yi ci wàllu ndox ak wàllu café ba keroog ñuy àgg ndax yoon dafa xaw a gudd te dafa metti asalaamaaleykum wa rahmatullah biche ba tey ñu ngi fii ci Thiès Thiès nag dafa nekk carrefour bu am solo ñi jóge ci dëkk dëkkaan yëpp fii la ñuy tase ci biir Thiès loola waral Bichri TV initié caravane ila tubaab yi bëgg leen a wanale lépp lu ci xew ci màggal gi fii nag Thiès nag xam nañ ko ndax yoonu murid dafay am am solo lool ci doomu Serigne Touba yi ku ne sëñ Saliou ku ne Thiès ne maam Cheikh Anta ku ne cees ne maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne njabootam gi nekk nañ fii di fi am di fi amal liggéey bu am solo économiquement aussi Thiès dafa am solo ndax màggal Touba activités yi fiy dox bëri na ñiy jaay bëri na looloo waral sax ñu wax un très fort impact économique boo xamante ni nii màggal gi da koy jur waaye loolu du kese ci gox-goxaan yëpp la foo romb rek dina am benn activité commerciale boo xam ne dina indi une certaine rentabilité financière bu ama am solo ci biir màggal gi looloo waral nag Bichri TV ne dara du leen rëcc ci màggal gi ndax ni mu indi ay caméra am fii ci Thiès noonu la ko defee ci dëkk yëpp di wane la dimension la dimension internationale de Cheikh Ahmadou Bamba looloo waral ci TV initié caravane bu am solo bi di Ila Touba bu ñu jógee Thiès aussi dinañ demaat si yeneen dëkk yu ama am solo yoo xam ne ni dañ leen woon murit yi nan lañ fay nekkee pour préparer màggal gi ñu ngi leen nuyoo yëpp ñuy dem Touba ñun tamit incha allah rabi dañu bëgg a dem Touba magal Touba daal. képp kuy Sénégal ñëpp ñu ngi waaj dem quoi kontaan nañ ci trop yéen tamit ñu ngeen def ci affaire bi yàlla ngeen génn ci bu baax a baax quoi kontaan naa trop ñu ngi aussi fii Thiès à station Sel ci mooy suñu arrêt quoi mais moto yi tamit bëgg nañ dem mais gars dañ ne bu ñu dem dañ ñu jàpp quoi mais incha allah dañu jël ay oto yi bis ñu fay dem incha allahu rabi kontaan naa. la seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokku taalibe yi ba tey caravane Ila Touba bi nga xam ne Bichri bi moo ko initié ginaaw bu ñu jógee Dakar jaar jëm ñaajo jaar pour egsi Thiès ñu ngi fii nag ci xombol xombol nag bu ñu ko waxee tudd Cheikh Mouhamadou Moutala mi nga xam ne am na fi kër yu takkoo takku daan fi liggéeyal Serigne Touba xombol aussi centre agronome la parce que gis nañu fii jaayum bétail lépp activité commerciale boo xamante ne ni macha allah mbokku taal julli ji ak yi ñoo ngi koy doxal TV nag euh, comme ni ma leen ko waxee dafa taxaw ngir jëmmal bésub Serigne tubaab yi bëgg leen a wan dara du leen ci rëcc bëgg leen a wan lépp li nga xamante ni day am ci bis bi jaaykat yi jëndkat yi. voyageurs yi ñëpp képp képp koo xam ne dangaa jëmali Touba Bichri TV dina leen ko won bu ñu jógee fii ci Xombal dinañ dem Bambey jaar Mbàkke jaar Diourbel bay egg Touba lépp Bichri TV dina leen ko wan xamal leen leen ak daayira yi nga xamante ne ni bindum sëriñ tubaa mi la ñuy fësal ndax Serigne tubaa waxoon na kiraama ci xatu yet yi maanaam ni mu bindu moom mooy ay kiraama bu nit ñi di yéemu ci julli ci géej gi. gaynde ga jugoon sukkoon na jébbalu moom li nga xamante ni moom la bind moom mooy keemtaanam moo tax dina leen wane bind mi wane leen ne bernde yi nga xamante ne nii mbokki taalibe yi dinañ ko def ndax dañuy wax naan ñu ci euh, xeebuñu ci ganaar waaye otem ñu ci ay géléem moo tax dina leen wan benn yi nga xamante ne nii mbokki taalibe yi ñoo koy def jëmale ko Touba. itam am na di may nettali benn xista rek am na ku ñëwoon ci Cheikh Abdoulaye ne ko du màggal gi murit yi diñ ci yàq bëri na waaye la ko Cheikh Abdoulaye tontu moo de ñam bu yàqu moo gën der bu yàqu loolu rek mooy leer ñam bu yàqu moo gën der bu yàqu ndax ñu demoon naan lekk ga doyu teg naan ga doyu loolu der bu yàqu la waaye Cheikh Abdoulaye loolu la ko tontu moo tax ñu Bichri TV daal lépp loo xamante ni nii aju na ci màggalu Touba dina leen ko wan moo tax ma wax ne ak Bichri TV moom màggal gi day mel ne lépp di ngeen ko dund doon tey seen kii mayu leen ngeen ñëw itam yéen nga xam ne yéen a ngi ci dëkk yu sori yi Bichri TV dina leen fekk ba ci seen biir kër mu mel ne da ngeen a fekkee màggalu Touba gi waaw mbokk taalibe yi ñoo ngi fii ci xombal ñu euh, fekk fi ay soxna yoo xamante ni nii ñooy jaay soxna si ñu la doon nuyu nga laaj sa tur waaw maa ngi tudd seeni Sow looy jaay fii maa ngi jaay mu orange ak clémentine ak nguru ak màggal gi maa nit ñaa ngi ñëw bu baax a baax. màggal gi da moom njaay mi moom doxagul nag. ndax yu ñu lu waral loolu. Mm. wàññiku bi daal yaakaar naa ci la yëngu bi xaw a ëpp. njaay mi nii ñun li ñuy jaay. ci wàññiku bi ñuy jënd ay sëri ca. ah ñi wàññiku ñoo koy jënd. waaye da ngeen di toog teela toog rek di xaar taal bi. toog rek di xaar yàlla rek bay wàññiku bi daal ñu doxantu ci rek xañ na loolu yàlla def ci xéewal. daa njaay mi seerul loolu. waaw ah, njaay ji moom xaw naa seer moom orange ji moom li ñu ko jëndee fii ne dafa seer. Hmm. waa seer na waral loolu heure bii nii. ah xanaa xañ na jaaykat yi xañ na ni ñu koy indee xañ na moo seet ci ñoom ñu joxe ñu ko it lu seer itam waaye nag ñu mënta ñàkk comme jël bi mënta ñàkk moom mooy sunu liggéey il faut ñu. di ngeen ci wàññi doo leen ko yokk yokk trop ndax permettre mbokku taalibe yëpp am. ci ñoom mbuus téeméer rek li ñu li ñu daan mbuus rek la ñuy mbuus la ñuy mbuus rek mbuus téeméer yokkuñu ci wàññiwuñu ci suñu ci amee lu ñu euh, lu mu tuutu rek baax na. waaye yokku ñu ci wàññiwuñu ci liñ daan jaay rek loolu la ñuy jaay bu téeméer la ñuy jaay moom la ñuy jaay waaye yokku ñu ci wàññiwuñu ci. looy ñaanal mbokk taalibe yi nag ci ma ñaanal leen màggal jàmm dem ak jàmm dikk a jàmm yàlla seddal yoon wi guy waaw yàlla seddal yoon wi ba ñëpp dem ci jàmm dikk ci jàmm ñu fekk ko jàmm fekk koy ati at yàlla def ci xéewal amin jërëjëf. yéen yàlla defal leen. taalibe yi ba tey ñu ngi fii ci xombal taxa ak sañ Ouzin mi nga xam ne journaliste la nekk ci rajo xombal sëñ bi ñu ngi lay waaw yaa di la jaajëfal bu baax a baax rek mbokk di leen nuyu nag itam eh, di rafetlu rek vraiment seen liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ci li nga xam ne nii moo di màggalu xaadimu rasool bi ndax yéen a ngi ciy bay seen wàll bu baax a baax eh, li may wax rek mooy eh, di wax di conseiller jaaykat yi nga xam ne nii ñoo nekk rek au niveau de la gare routière di leen wax rek ne leen njaay mi lu mu neex ne de leen bàyyi xel ci li nga xam ne nii mooy route nationale bi te itam ñi nga xam ne dañuy màggali ànd ak ay xale ma di leen conseiller rek toujours ñuy téye loxo xale yi te di leen surveiller de près c'est très important. deuxièmement may wax rek ne ñi nga xam ne nii aussi dañu yore ay bicyclette maanaam ay mobilette ak et cetera ñuy def attention di daw ndànk tey dawal kot parce que wax dëgg yàlla di di nekk ci tali bi ba nga xam ne nii gëmmentu nga wala sonn nga wala vraiment bàyyi reflet bi des na vraiment day indi ay accident yoo nga xam ne nii vraiment yéene ko kenn ñu bëggoon rek chauffeur bu nga xam ne dawal nga ba sonn nga droité nga noppalu nga jël sa temps chauffeur bu nga xam ne nii xaj na da nga feebar nekkuloo si euh, en bon santé nga jàdd fu nga xam ne dinga mën a faju dallu ba nga xam ne di nga mën a ànd sa xel jaar ci circulation bi si normal te ñu yaatal xol yi laabirante nga xam ne nii itam ku nga xam ne daf la duble si liiñ continuer wala nga xam ne nii daf la daf la doublé ci fa wala ci leneen nga muñ rek te xam ne màggal gi moo leen boole ki ñu yaatal xol yi rek wàcce tension yi te jàppalante comme ni ko borom màggal gi sant rek yaakaar naa dinañu war a mën a dem ci jàmm. Bichri bi dafa nekk télé boo xam ne dafa nekk Amérique ku nekk am nga mbokk moo xam ne mi ngi Amérique nekk fa yàgg fa. ban message ngay lancé ci. bon li may lancé ci euh, message bi mooy uniquité yàgg na si àdduna sénégalais yàgg na génn di daan doole man mii def na huit ans de uniquité kon xam naa li nga xam ne nii mooy euh, tukki euh, di leen wax rek naa leen fu waay nekk mën nga fa màggal fu waay mën nekk itam na nga ràññee télé bi te xam ne télé la bu nga xam ne nii vraiment reconnaître nañ ko fii ci Sénégal te mi ngi jàppale doomu aadama yépp itam te dafa nekk lu nga xam ne nii wax dëgg yàlla su dee wàcc bay nga xam ne day wàcc ci askan wi di xam li askan wi dundee li askan wi di jànkoonteel yaakaar naa ne loolu rek mooy média média mooy lan li nit ñi soxla actualité li xew lan moo xew li ñu war a moytu ak li ñu war a dund ak li nga xam ne nii rek moom la nit ñi war wuti su fekkente ne nii nit indi na ko muy média bu nga xam ne andi na ko ba sa buntu kër mu li nga waroon a wëri ci àll bi mbaa nga war ko liir ci journal nga di ko gis ci télé bi muy déplacé wu di ñëw defe naa loolu rek mooy télé. mu mel ne xombal aussi dafa mais ndax nit ñi influence bi commencé na bu baax. waa mais xam nga euh, circulation bi toujours euh, mi ngi commencé la plupart ci week-end bi parce que week bi di samedi ci la ñuy bàyyi ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu ñu yor ay particuliers yor seeni oto ci lay ëppee transport bi itam ah, xam nga ne su samedi jotee a jàpp dimanche ba lundi mardi di màggal bi fi la yëf yi euh, tare mais nag lépp rek mi ngi dépendre rek ci chauffeurs yi chauffeurs yi suñu àndee yar boole si tey respectante di dimbalante ku juum situation bi jar na nga droité mbaa nga xam ne kii vraiment fi mu la doublé baaxul nga bañ a dàqe bañ a foog yàlla mun na leen a may ñu dem ci jàmm dikk si jàmm. jërëjëf sëñ bi. voilà merci beaucoup. billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokku taalibe yi ba tey caravane ila Touba ak Bichri TV ñi ngi fii nag ci Nangalma Nangalma nag xam nañ ne mooy xaaju Touba diggante Touba ak Dakar nangal ma mooy xaaj bi kon ñun dafa mel ni egsi nañ ci suñu diggu yoon caravane bi nag day continuer ñu nar a dem Bambey yeneen dëkk yoo xamante ne nii Bichri TV programme spécial Magal Touba bi dina leen xamale dëkk yooyu yëpp nangal moo nag gis ngeen activité bi nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi ñëw mel ne ñoo ngi waaj bu baax a baax Magalu Touba gi oto yaa ngi dem oto yaa ngi dikk ñu ngi waaj nekk ci wàccaayu màggal gi activité commerciale yi aussi ndax fi ñu taxaw ni marché la gis ngeen influence bi am na ay activité commerciale ñi ngi jaay dàll ñi di jaay saak ñi di jaay lépp loo gis rek fii am na fi ci ci marché nangal ma bii jaay jaay yu sew sewaan yi mel ne euh, secteur ki activité yi fi nekk yëpp activité yu ama am solo la mu mel ni nit ñaa ngi koy doxal bu baax a baax a baax ci wàccaayu màggal gi ba tey caravane Bichri TV bi xam ne mooy nangal ma maa ngi jàkkaarloo soxna maa ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér soxna si. tur bi nan la. Ami Thiam laa tudd. ñu gis la ngay jaay ndox kañ nga commencé jaay ndox fii màggal gi ko waral wala yàgg na. léegi ñun toujours lii la ñuy liggéey. Mm-hmm. sedd bi commencé rek la ñuy xaw a ndax sedd bi doog dox. Mm-hmm. waaye chaque jour ci lii la liggéey. ba liggéey baa ngi am kii bu baax a baax nit ñaa ngi. sant yàlla rek xam nga xëy na bañ a toog rek. Mm-hmm. boo xëyee am loo furaatu. fay facture ak loo xamante nii rek bu xale yi soxlaa nga jox leen si. mu mel ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu ci ci ci gox bi nga xam ne nangam la ndax ñoo gis ñuy jaay ñii di jaay pastèque ñii di jaay ay légumes ñii lu nekk daal jigéen ñaa ngi ciy sóobu jigéen ñi fii ci nangal nan la demee. taxawaayu jigéen ñi daal maanaam noo ko xalaatee sa ëpp na jigéen ñi ndàngal heure bu ñu xëyee soo ba ngoon ñu def rek seen njaboot sàcc ñu muy ñu yàlla moom liggéey rek daan doole moom toujours ñii ngi si gerte gi xolli ñii ngi jaay keleman ñii ngi jaay teel ndox maanaam foo yëngu rek pour am fa rek jigéen ñaa ngi si moom caaxaan daal la ñuy bañ moom waaye moom liggéey moom ñoo ngi si moom wax dëgg fa yàlla. màggal gi ndox mi da nga koo fas yéene yóbbu ci yoonu Touba bi wala da ngay toog fii rek ku ñëw nga jaay. ma ngay toog fii ñu jëm Touba bëggee naan ñu jëm Dakar tamit bu ñu la tourné xam am na ñoo dañuy soxla ndox tamit ku bëgg rek ma jaay la ma demee jaay rek jërëjëf. الرحمن الرحيم حمدي وشكري لمن كل بسارة له رضا دون صوت عند سرسارة له سناء وردوان بلا سخة مسخاد لي من بني ديمان عنجارا lillahi kulli lada abara makrumatan min hartaalna wa fi ajam man jara inna lasina ila sarsara xat siyaratin faraxu daarayni awsara la la la illa la fal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 jërë ngeen jëf ñu ngi fii nag ci Bambey Bambey nag mooy xolu Bawol ñu ñëw fii ci kër gi nga xam ne mooy siège yu daa daa daayira Angle Mouride ñu bëgg a xamal leen teg ñoom ndax waa kër gi ñoo ngi yëngatu ci ay benn yoo xam ne lépp dañ koo def ngir bësu bésub Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar soxna si. ñëw fii ci daayira Angle Mouride ndax man ngaa wax ci baat yu gàtt rek taarixu seen ki daayira bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. yaa la bari yaa la bari xoojul bari bari saa yi sëriñ Tuubaa na yàlla damaa wooteloo woote naa ku si wàcc nga ma des yàlla damaa wooteloo woote naa ku wuyu si wàcc naa yaa des looloo waral Serigne Touba wooteem bu rëy bi ñu bàyyi suñu yite yëpp daal dox daal cee jëm ma waral saa bu weer wi duggee de dootuñ am sago lenn rek la ñuy bëgg muy waajal màggal gi lii maanaam ci wàccaay màggal la rek ci see safar lay dox. maanaam dañuy def li ñuy def pare albatiku daan màggal yi ndaxte màggal ku ne xam ne na Touba la waaye fonk bi nu fonk bisub suñ Touba bi xam li nu suñ Touba defal xam ne suñ Touba moonu moom zimamul war a siradallaahi fi yadi wa ma rumtu min malikin haada bil amni xam ne moom ginu suñ Touba moom xam moom yi suñ Touba moom ruu yëpp moo waral ñu daat ne kat danuy teeru bisub suñ Touba bi jël suñ alal sunu sunu nag sunu doole lépp lu am ak lu mu mën koy def bi suñ Touba bi bis bi saa bu dikkee daal bëgg nañ daal gani Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñooy jugee Dakar di jugee Saint-Louis di jugee Thiès ak fépp ci àddina di jaar Bambey saa bu daal bëgg nañ ñu naan ana ana jumaa ji ñu jàpp ne fii mooy Bambey. gis nañ aussi ay nag yu bëri ak ay xéewal ki barkeelu budget bi nan la demee dañ leen ci jàppale wala yéen taalibe yi yéen ñooy jël seen initiative bopp di doxal loolu. waaw loolu moom dinañ ci wax lu yaatu ndaxte mbooloo maa ngi mbooloo mi daanaka bariwut li nga gis fii rek mooy mbooloo mais seen passeef ak seen pas-pas moo waral lu ñu song daal koy daan te xam na ni ñu nit amunu mënunu sañunu waaye sëriñ bi am na sëriñ bi mën na sëriñ bi sañ na moo waral lu ñu song rek dañ ci am dam ci téeméer ak juróom benn fukk lañ tàmbalee 2007 jamono ji nga xamante ni sëriñ sëriñ bi daal di dem ci lañ ko tàmbalee ñu ngi ci 1 million 700 kon loolu li ko waral passeef la waaye nga boo dee xool da nga naan lii du zaahir baatin bi yor péng ko yor mbooloo mi ñooy daje fi mu toll nii kenn ku ci nekk dañ lay sas ñenn ñi ñaari junni lañuy joxe ñenn ñi junni ñenn ñi 2000 ñenn ñi lu am daat koy joxe daat koy dajale ba mat amul kenn koo xamante ne dem ci maanaam war ñu dem ci politicien war ñu ko xam nit àdduna naan la kat danoo soxla lii war lii ngir bis mat déedéet sëñ Tuubaa rek lañ ko diis moo tax bis bi saa bu ñëwee buñ dee sant kenn la ñuy sant muy sëñ Tuubaa ndaxte moom képp jàpp ci bis bi amul kenn koo xamante nii mën ngaa taxaw ne maa jàpp ci kon ay taalibe ñooy dajale xale yu ndaw yi lu gën a tuut tuut di nga indi lu mu dee dee ñaar fukk. tudd nga fi léegi 16 safar mu mel ne dimanche bi dina am ay yëngu-yëngu yoon def mel ne da ngeen dem ci taliba yóbbu ay xéewal ak yooyu nan la demee loolu. waaw loolu moom mooy comme teeru gi rek tey lan ko tàmbale 14 hmm. safar suma ma jumul tey la. Hmm. soxna yi ñu ngi ci boobu léegi xëy nekk ci beñe yi. Hmm. ngir mën a waajal beñe yu yaatu. bu ñu yendoo defar beñe yi ba ngoon góor yàlla yi ñëw simmeeku ñu nekk ci nag yi daal leen lewatal daal di jii ma xool noo xamante ni nan nañ ko def ba suba ñu xëy ñun ñëpp fajar xam ne mooy pompiteur bi lépp li nga xam ne day aju ci mbir mi ñu daal koy defar ba ci ngoon gi maanaam ci lay ci lay pare lu tax ngeen tàmm ci bi gi 17 bi waaw xam nga màggal gi moom 18 safar la mais comme li Serigne Saliou doon wax naan màggal gi nan koy teeru di ko gunge moo waral ñuy teeru teer màggal gi loolu moo waral 16 gi te 17 safar ku ne xam na ne waa Njaaréem ñi ngi ciy def lu mën ak moo waral kat ñu ne xam ne kat Njaaréem boo nee tubaa da nga naan Njaareem ne Bambey kon boo nee Touba 18 ne Njaareem 17 war nga ne bambay Bambey 16 ndaxte ñetti dëkk yee ñoo bokk ci Bawal takk ndeer bi jumaay Touba ci dëkk bi la am dëkk bi ci la Cheikh Mouhamadou Mourtada doon gàmmoo mu nekk dëkk boo xamante ni képp koo xamante ni ci waa kër Sëriñ Tuubaa am nga fi kër maa nga fi jeexit indi fi sax njaboot mu daat fi nekk kon dëkk boobee suñu borom defal nu loolee suñ Tuubaa defal lu taw feex googee ñu nekk dañuy roy waa Njaareem mbir mi ban koy def waa Njaareem la doon roy waaw ba nañ tàmbali mbir mi ci waa njaareem lañ ko doon rey ba tey gi suñu boom dimbali nu seize safar daal jàpp dañ ne Bambey moom la ko àdduna sépp di wax ndaxte daanaka ku ci nekk ñi nga xam ne ñooy màggali seize safar ñëpp koo ci da ngay dugg ci oto sax koo xam ne xamoo ko xamu la mais danaan ah Bambey de xéewal ya fa dem day mel ni foofoo nekkoon màggal gi kon loolu rek lañ ci jublu woon ngir gani suñ tubaay kenn bañ a sonn waaye liggéey bi ñun dañ cee dañ cee gën a dox yamatuñ ci jox la sandwich waruñu jox la beñe waruñu jox la café waruñu jox la ndox déedéet doon ko bëgg def daluwaay boo xamante ni Bambey képp ku fi ñëw ba juin boo bëgg am di nga ko fi def dañ fi waajal ay wanag yoo xam ne képp ku bëgg ñëw ngir bëgg a yeesu di nga koy yeesu ay satal yoo xam ne pour yeesu la lu mel ni jàkka dañ ko fiy def képp koo xam bëgg ngaa julli heure bu julli bu fekkee da julli kon lépp loo xam ne nit bëgg na ko yamatul ci dundal biir rek waaye dundal ruu yi dañ ciy doxaat fi mu toll nii. am na solo lool jërëjëf <laughs> ñu gërëm di sant di bu baax ndax gis nañ xéewal yi dalal ngeen ñu tatagal ngeen ñu berndeel ngeen ñu macha allah di leen jaajëfal bu baax a baax. waaw ñun ñoom ñooy sant bu baax rek wax dëgg fi yàlla di sant bu baax seen taxawaay ak seen teewaay ci ci ci ci barab bi di daayira Touba Angle Mouride di sant mbokk taalibi yëpp ñu ngi fi depuis démb nekk ci liggéey bi soxna yeeg ñëpp ci mu doon nii kenn amatu jot ñoom ñëpp ñu ci am ñu ci bàyyi ci màggal gi ñor ki am ni ñu ko bëggee mbooloo mi yëpp daal di yokk ni ni budget bi yokkee sëñ Tuubaa yal na taxaw ci mbir yi mbooloo mi kenn ku ne mu teg loxo kenn ku nekk la nga bëgg moo xam lu mu mënti doon yàlla na suñ Tuubaa teg loxo mbooloo mi daal yàlla na leen di seen ci kaw yàlla nañ mel ni jant rek waaye liggéey bi dañuy sant suñ mbokk yi Bamba yi bi nga xam ne dañoo tàbbisiwaat ndox fi njëkk a def ba daanaka daaw ak ren gii ci la yeneen dëkk yu bari yeneen koñ yi nga xam ne ñoo nekk Bamba yi lu mel ni kayen waxal jàmm yàlla bu mu yem ci ñun yàlla na tasaaroo ci àddina fépp fu aw ay nekk yàlla na boom def jàmm ñëpp koo képp koo xam ne jàmm nga fa yàlla fa jàmm sax nag sëriñ saa yi da doon wax naan aw ay feeg yaa ngi koy dégg muccoo ci te ay wi danoo wër ñu koy dégg mm-hmm. kon nag yàlla nañu suñu borom musal ci baat suñ Tuubaa Mbàkke jërë ngeen jëf ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi sopp yi sang yi nga xamante ne bi yéen ngi teewlu seen télévision Bichri TV international ñu leen di ziare di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax waaye di am mbégte bu baax a baax nag di ñëwaat ci seen programme spécial Magal Touba ci seen plateforme caravane ila Touba bi nga xamante ne bi xam ngeen ne door nañ ko tey nag soxna Soda Dakar jaar ci dëkk yu mag yi yu mel ni Thiès waaye laata Thiès jaar nañ ma jaar nañ Pout biñ ñëwee jaar nañ Bambey gis ngeen euh, euh, daayira angle mouride xéewal yu tëdd yi nga xamante ne bi présenté nañ ñu ko ñu ñëw nag ci seen première focus su plateforme bi ndax xam ngeen ni dafa am ñaari arrêt yu mag yoo xamante ne bi ci euh, Ila Touba bi muy njaareem ak di Touba ku wax njaareem nag kon wax lu spécial ndax bu dee Touba ab dëkk la njaareem mooy yoon wi bu dee Touba ab néeg la njaareem ay bunt bi ëpp ci li mu doon ñaan suñ borom fii la ko ci pàkk bu tedd bii ñu nekk nag ci kanam jumaa ji wala marqué état bu njaareem ñu ñëw ba fii ngir mën a def ouverture bi ngir mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne mii ñu ngi ñuy seetaan ñu xam ne caravane bi kat lii moo ko taxoon na jóg dem ci bërëb yi nga xamante ne bii bërëb yu euh, euh, ràññeeku la ci dëkk bi wane fa li nga xamante ne bii liggéeyub Serigne Touba ma ngi fay feesee ndax Serigne Touba kat bokkatul sax ci li ñuy wax lu yem ci dëkk wala réew waaye yamatul ci menn réew il est à l'échelle internationale looloo waral bu ñëwee ba fii ci pàkk bu tedd bii di njaareem ñu taxaw war a mën a ñëw ci buntu jumaa ji war a mën a waxtaan ak mbokku taalibe yi mbokku téléspectateur Bichri TV yi nga xamante ne bii sikkiwul ne bi ñu tàmbalee Dakar ba léegi ñu ngi ñuy topp ci seen plateforme caravane ila Touba bi nga xam ne Bichri TV da leen koo indil ngir bëgg sekki leen ci seen i saal ak ci seen i biiri néeg wan leen li nga xamante ne bii amaana ku màggal si sax war na koo mën a am war na koo bañ a am ndax it dañ na la télévision au service de Khadimou Rasoul kon gis ngeen ne ñu ngi fii ci euh, euh, jumaay Jurbel euh, xam naa ku ne Jurbel nag dinga nga fàttaliku lu bëree bëri bëri ci sëriñ bi di nga fàttaliku lu bëree bëri ci dunduk sëriñ bi waaye ci ñi ay seexi sëriñ bi ak taalibi sëriñ bi nga xam ne ñenn ñi ràññeeku nañ fi lool ku ne njaaree mit da nga wax maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ndax bu ñu ne sëriñ bi buñ na yoonu murid jàpp naa ne kat buñ ci tuddoon maam Cheikh Ibrahima Fall rek xëy na amaana dana mën a bañ a mate kon njaareem dafa nekk benn pôle boo xamante ne bii pôle bu am solo la yoonu murit ràññeeku fi yoonu murit bay fi waaram sëriñ bi dëkk fi ay at yi at fii ci pàkk bi ñu toog lu ne mu gis ko fi lu ne mu daj ko fi waaye mujjanteelu dund dundam gépp tamit fii ci pàkk bu tedd bii la ko dundee ndax xam nañ ne sëriñ bi fii la mujj noppaloo waaye it lu bëree bëree bëri ci ay sirru lu bëree bëree bëri ci ay may lu bëree bëree bari ci ay xar baax feeñ na ci pàkk bu tedd bii sëriñ bi am na xam-xam yu bëri yoo xam ne génne na ko ci pàkk bi mag ñu baax ñi ah, nettali ko nettali ko kon nag bu ñu agsee jóge Dakar jaar fi ñu jaar baag si njaareem dafay jaaruñu nag toog def taxaw seetlu ci dëkk bu tedd bii nga xamante ne bii mooy njaareem ñu ngi kër sëriñ Afia Lakram mi nga xamante ne bii xam nañ la mu doonoon ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul kër Serigne Touba yu bëri buñ ko gisee boo seetloo ca wet ga kër Serigne Afia ma nga fa Serigne Moustapha Lakram mi di xalifa Serigne Afia nga xamante bi dafa am taxawaay bu am ci Bichri TV ñu koy ziyaare waale xam naa ne léegi Abdou Diouf dina ñëw bu defee ñu mën a euh, euh, jublu ci Euh, présentation bi nga xamante ne bii bëgg nañ koo def muy bëgg leen a wan essence su waxatul Moubarak bëgg leen a wan essence su lan la njaareem di représenté ci yoonu Mouride lan la njaareem di représenté ci màggalu tubaa gi nga xam ne encore une fois ci la ñu nekk ci ubbiteeg màggal tubaa gi xam nañ ne ñi ngi waajal màggal gi talaata la tey la ajjuma ñu xool nan la ko waa jurbel dundee xool nan la ko waa pàkk bu tedd bi dundee waaye kenn du wax njaareem kenn du tudd kër gu mag te tuddoo Cheikh Mountakha Bassirou jàmbaari Makhtar ji nga xamante ne bi du sonn du tàyyi du rëkk ci liggéeyal Serigne Touba di ko fësal ci liggéeyal Serigne Touba di ko wane waaye bis bu ne Mbàkke mu ñuy yéem di ñu woon ak taalibe di ñu woon ak toroxlu ci Serigne bi ci loo xam ne bépp murit bu ci teg sa tànk doo ko réccu kon daal njaareem am na lu bëri loo xamante ne bi tey ji bu ñu dee caravane ba ñëw fii dañoo war a nag taxaw sippi ndax jàpp naa ne bu ñu motalee njaareem daanaka Touba répétition lay doon ndax Serigne bi kat lépp lu mu am ci pàkk bii la am dëkk ci dëkkam bu tedd bi waaye lépp loo xamante ne bi sàkk woon nañ ko suñu borom kat may na ko ko ci pàkk bii te it nag du fii rek ndax gis nañ ci àdduna bi wëngal këpp dëkk boo dem da nga fa gis sëriñ kër sëriñ Tuubaa da nga fa gis makkaan boo xamante ne bii ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba lañ koy séddee waaye fii nag ci Boukhatoul Moubarak dafa nekk dëkk boo xamante ne bi nekk pàkk boo xam ne pàkk bu yéeme la pàkk bu am solo la pàkk bu doy waar bu spirituel la boo xamante ne bii zaahiru sëriñ Tuubaa ak baatinam dafay feeñ donte du lu wute ndax moo waxal boppam ne zaahiran wa baatinan tawafaxa kon nag dafa am loo xamante ne bii bis boo nga xamante ne bii am na day jaadu mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne bii yéen a ñuy seetaan encore une fois ci seen programme spécial Bichri TV ci seen caravane Ila Touba ngeen bàyyi xel ne fii ci pàkk bi ñu nekk kat bokk na ci pàkk yi ëpp gën a tedd gën a màgg ci àddina ndax jàpp nañ ne mooy pàkk bi nga xam ne sëriñ bi yàgg na fi dëkkoon fi nekkoon fi nekkoon fi tamit ak i mag ak ay jàmbar yoo xamante ne yu am solo la kon sëriñ moor euh, xam naa dañuy euh, euh, wéyandi rek ci programme présentation bi daal di dugg ci biir gis xool li nga xamante ne bii moom moo nekk ci biir waaye ginnaaw loolu tamit ñu xool yeneen gox yee gox goxaat yi nga xam ne wër na penc mi te xëy na indi leen ko dina am solo ñuy fàttali ne yéen ci seen caravane spéciale bi nga xamante ne bii mooy illa Touba ñu jëm nag Touba jëm ci dëkk bu sell bu màgg boobu nga xamante ne bii sëriñ Touba nee na mooy ñaan gu nangoom neex bu baxee xeeñ kon dafa mel ni njaareem am na loo xamante ne bi dayo goo bi war nañ ko fee wane laata nag ñu dugg Mbàkke waaye di àgg ca bërëb bu sell ba di Touba kon dañuy bàyyi sëñ Mor ñu wéyandi xool lan nga lan moo xamante ne bi moo nekk ci biir jumaa ji ci biir jàkka ji waaye ñu xool gox yi nga xam ne ak koñ yi nga xamante ne bi ak sëru yi nga xamante ne bi war nañ koo mën a découvrir fii ci bu mu Moubarak fii ci njaareem ila julli di mbokki taalibe yi mbokki euh, Bichri waa ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Bichri TV ñi ngi ba léegi ci boxatul mubarak ci euh, njaareem euh, ku ne nag Serigne Touba ku ne goxub Serigne Touba di nga wax alquranul karim Serigne bi moo wax loon ba fal ne malakanil furhana wal fununa kon suñ borom donc daf alquran dafa bokk ci li nga xamante ne bi yàlla da ko moom loo ku tedd ki kon ñu taxaw fii ak ndongo yi xamante ne bi ñooy jàng alquran am ci koo xam ne ràññeeku nañ ci ñu bugg koo laaj ab laaj bu ko defee mu daal ñu mën a taril alquran yow noo tudd Serigne Modou Ndiaye fan ngay jànge daal suñ Basiiru jàng daal suñ Basiiru wàcc nga alxuraan waaw waaw léegi dañuy bëgg nga jëlal ñu fenn rek ci alxuraan loo xamante ne bii ñu ngi ci jamonoy màggal waaw da ñu jëlal benn benn lenn loo xamante ne bii rek ci alxuraan benn aaya boo xam ne jàpp nga ne war na méngoo ak jamono ji ñu nekk ci màggal ngir nit ñi mën a delloowaat seen xel ci yàlla suñu borom dañu lay bàyyi nga tànnal sa bopp. A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتيها نودي من صوت الواد الأيمن في ال في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أيام موسى إني أنا الله رب العالمين sadaqallaahu al-aziim kon mu tënkal ñu ci suratul Ankabut aaya bu am solo boobu ñu lii di firnde rek ne euh, sëriñ bi ay ndawam ndaw mi tey la sëriñ Saliou waxoon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom euh, la sëriñ bi defoon ci mag ñi dafa mel ni firndeku na kon ñu lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal bu baax a baax lan ngay wax sa moroomu dong yi ak sa moroomu taalibe yi ci màggal gi ñu góorgóorlu. waaw te jàng bu baax. waaw na jërëjëf. Bande bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk taalibe yi ginnaaw bu ñu leen wanee présentation bërëb bi euh, di jumaa ji di pàkk bu tedd bi kon dana jaadu mag ñi nga xamante ne bi xëy na ci ndigalu euh, sëriñ bi lañ fi nekkee toog fi di sàmm bërëb bi ci xam-xam ak ci teggin ñu waxtaan ak ñoom ngir euh, mën a root ci ñoom ay yenn baat ak yenn kàddu yi nga xam ne dana tax téléspectateur Bichri TV yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy teewlu mën a am clairvoyance wala moo a xamaat xam-xam boo xamante ne bi bu wér lay doon Euh, ci bërëb bi may fàttali mbokk yi rek na ñu ngi toujours ci seen caravane euh, spéciale Ila Touba jëm Touba kon ñu jóge Dakar ak si fii ci Diourbel moo wax naa leen ne Diourbel étape spéciale la kon ñi ngi ak suñu waajur euh, bu baax wi Serigne Youssoufa Niang di bokk ci mag ñi nga xam ne dañuy sàmm bërëb bi xam naa kon yor waa yor daare kaamil ñu koy ziar bu baax a baax di ko sant bu baax a baax a baax xanaa kon di ko jox kàddu gi rek ngir mu tënkal ñu rek ci ay baat wàllu bërëb bi jàkka ji jumaa ji sëriñ bi ci ci ci ci ci pàkk bi ndax xam nañ ne lu yéeme woon na lu amoon solo papa bismillah auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul eh, day lu jar laaj la eh, lu am solo it la ndax barab bi di daaree kaamil mooy barab bi nga xam ne moo makki daare kaamil yi nga xam ne yii yëpp tey ñoo nekk ci kaw euh, suuf fii ci ci jamono Sëñ Tuubaa yi moo ko rër ci tànkam xasablu ko yónnee ca dëkk ba ay seng ñu daaj ko def ko mu ut ñaar fukki xaasi afital Quraan ak juróom-ñett mooy arafi Tuubaa ñu sax fi di fi jàng guddi ak bëccëg 1913 ba nëgëni bët bi seen jàng fi juróomi kaamil moom ci boppam bi mu ko soog a def daana jóge ca kër ga waaxu ñëw ba ba beeg si fii fatt suñ jokkub jukki mu jàng ko wañu rek waa dellu ci biir dégg fii mooy daal di kaamil daal di dégg yëpp kii mooy seen ndey wax nañu ne daana wax ne mag ñi fi nekkan su ngeen xam ndey alxuraan jii ma leen sant ngeen di ko jàng fii ci sama barab bi ngeen fonk ma ko ndax bari na fu waaye nekk am jàmm soo ko xamee boo ko xamut jàmm nga bàyyi ko fii muy tubaab ba nekk tugal ak pël ba nekk ca jolof di sàmm topp ci nag yi di ba ngir jàmm jo ñu am ba tal ko lépp mi ngi bàyyi ko ci sama kaamil bi kon fonk la woon na kaamil bi ah kër gii mooy kër sëñ tubaa gi nga xam ne gii pay boo ma ne bi genn la ci suuf tubaa tey mooy dëkk bu mag ba waaye fii nag la am fukki at ak juróom yoo xam ne juróom yoo xam ne mosu koo génn dem fenn waxtu wu nekk mi ngi fi maanaam kilifa yu bari yépp fii la ñu takk ndombay tànk fii la ñu nekk wër ko mag ñu baax ñëpp ñëpp kii nga xam ne moo den nag man ñu di ko Ndaam Abdourahmane mooy doomi sëñ Mame Lamine Diop daga na ku xam sëñ Tuubaa xam taarix sëñ Tuubaa boo waxee tuuti da nga sëñ Mame Lamine Diop daga nii dégg nga moo fi nekk mu nekk imam fii ci jàkka ji. ba nekk fi ñu moo ñoo fi ñii fi nekk kenn ku ci nekk sa waajur nga fi wuutu sa waajur fi nekkan wala sa maam ba tey mu jóge fi nga toog fi di fi jàng kon fii mooy daari kaamil mm, kër gu mag gaa ngi nii barab bee fa bàyyi ko ci saayir dem Touba kon fii la nekk ba ñu mën ko gis ñu jóge fi yóbbu ko Touba fii nag ba tey daal ba du seet ñu jàng fi juróomi kaamil muy taw muy naaj muy lu ak lu mën a xew rek benn xew-xew du xew ba tax jànguñu ko ñaar fukki nit ak ñaar fukki mu kàlla fa juróom-ñett kenn ko ci xam na kii sama borom def na coobareem ci moom it ñuut keneen wutal ko fa mu nekk fa ñu di ko jàng nañ ko war a jàng lii daal mooy li nga xam ne ci gàttal moom laa ci mën a wax waaw loolu laa ci mën a jërë ngeen jëf macha allah alhamdulilah kon papa dafa mel ni xel war naa dal ndax euh, li nga wax sànq ne bis bu nekk muy taw muy nag ñu wàcc fi juróomi kaamil loolu doon na lu kawe njort doon na lu am solo loo xamante ne bii euh, jàpp nañ ne kon bërëb bi kat dafa mel ni lii ñu dégg ci àdduna di ko dégg ci ci yeneen gox yi ci wàllu ay dafa mel ni kon euh, sëriñ bi fàggul na boppam loo xamante ne bii dana ko préserver dana ko protéger ci bépp ay boo xamante ne bii mi ngi am ci àdduna Bichri TV nag télé bi ñëw fii tey njaareem doon télé boo xamante ne ay taal bi yu nekk ci Amérique ñoo ko fa taxawal amal ko fa lépp luñ ñu fiy filmer ak lépp lu ñu fay wane ci foofu lañ koy wane ndax gis nañ ne kat jamono ji li nekk ci taali bi nekk bitim réew bëri na kon ñoom seen pësteef may leen ñu taxawal jël seen ay xéewal def ko ci projet bu mel nii ngir bu ñu nekkee ci bitim réew it seen i xel ak seen i xol yëpp di dellu si fii ci Touba xanaa ñu lay ñaan nga ndax li nga wax nee nga képp ku ci nekk wutu sa waajur nga fi uutu te waajur yooyu kat damay dégg euh, sama waajur sëñ Cheikh di wax naan ñi àndoon ak sëñ Touba bu dutoon ak sëñ Touba ku ci nekk mën a mën a yilif jamono sëñ mi leen dajale nag kon moom la kenn xamul lu mu doon tedd yooyu du suñu waajur dañ leen di ñaan ngeen ñaanal ci seen barke euh, initiative bi télévision bi euh, làkk ngërëmul sëriñ Touba te la tax mu jug mooy murid yi nga xam ne yàlla da leen a natt ñu ci seen réew dem bitim réew ñoom ñu mën cee am ak defaru mën cee am ak yokkute te loolu euh, sëriñ bi ñu ñaan jort nañ ne am nañ ko te jàpp nañ bu ngeen ko ñaanee ci seen barkey waajur ak seen i barkey maam sëriñ bi dinañu ko defal kon ñu ngi leen di sant di di sàkku ñaan bu baax a baax daal loolu yaakaar nañ ne seen ak ñaan daan nangu ndax li tax ngeen jóg jaari fii ñëw ci diggante jumaa ji ak pàkk bi ak ak ji li ngeen du da ko am na ko ba tey télé bi bu soobee la la ngeen ci bëgg da ngeen ba am ci lu kawe seen jot bisimilah ma jox ko sëñ Dame ji mu sànni leen ci ay kàddu. maaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara waa di leen liggéey bi nga xam ne sumb ngeen ko ngir seexul xadim ñëw ci barabam bu tedd bi yàlla na ko yàlla nangu te leen ci lu kawe seen jot. bi jaay Seydou Loudiot loolu Serigne Youssoufa Niang wax ci barab bi it mooy li nga xam ne rek moom mooy mooy melaw barab bi mooy cosaanal barab bi kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ngeen yokk ba fu ngeen bëgg seen télé bi àgg fi sunu borom àggale àggale ko fa asalaamaaleykum wa kër si la kër gu mag nekk jëwriñ fii ci pakk bu tedd bi al buqaaxatul Euh, ñun nag suñu taxawaay fii ñu ngi fi nekk 82 83 lañu fi nekk ba léegi euh, lépp luy suñu taxawaay nag mooy seetal béréb bi rek ak luy war ma li taxaw war ma war may béréb bu tedd bi pàkk bu tedd bi ndax ah sëñ Saliou de loolu nag ci ndigal sëñ Saliou woon mooy ne sama bëgg-bëgg bopp mooy ku may seetalal pàkk bu tedd bi waaw waaw ci lañ nekk nag ñooy amee béréb bi di ko seetal suba ak ngoon euh, lépp loo xam ni lu doomu aadama yi soxla woo la fii rek te ñu xam ni euh, ngërëmal sëñ Tuubaa mi ngi ci ci loolu la ñuy dox ngir sàkk ko ngir ku ci ku ci nekk tam ñu jàppale la ci fànn googu waaw ñun nag set bi daal set bi nekk ci pàkk bi daal mooy suñu wàll ci la ñuy yëngatu waaw waaw comme ni ko sëñ bi waxee rek wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi loolu suñu borom bi moo ko wax kon nag ñu fas yéene nekk ci loolu rek li ci woo mbokk taalibe yëpp tamit di ñaanal tam yéen tamit seen télévision bi yàlla defal leen ci tawfeex di ziare waa Amérique yëpp di leen ñaanal yàlla defal jàmm ci barke eh, at eh, weeru Sëñ Tuubaa wi weeru safar wu tedd ah, bi ah suñ bu defalu ci ay jàpp ay ngërëm yu bare bare bare barke Xaadimu Rasulullah aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mbokk jullit yi mbokk taalibe yi téléspectateur Bichri TV kon ginnaaw bi nga xamante ne bi agsi nañ njaareem wan leen jumaa ji leen pàkk bu tedd bi waxtaan ak suñu mag suñu sang yu tedd yi nga xamante ne bi ñu ngi fii ñu ngi fii ak Serigne euh, Babacar Sylla fii ci daaree Kaamil ci njaareem fas yéene waxtaan ak moom ci tànk mu leeral sabab barab bi leeral ñu historique barab bi waaye jox ñu ay tegtal wax ñu tamit li nga xamante ne bi moo wëndu barab bu tedd bi nga xamante ne bi ñoom la ñooñu nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah euh, kon soxna si comme ni nga ko waxee rek euh, kon yéen waa waa Bichri TV euh, ñu ngi leen di ziar di leen dalal jàmm yéen wax ni tey ñëw ngeen ci béréb bu tedd ànd ak ki ngeen àndal muy Abdou euh, bokk na ci notable ji ci bi ndax sëriñam bu tedd bi muy sëriñ Moustapha Abdoul Akram euh, lépp lu muy dox tey jii ci dëkk bi fii ba Touba Dakar lépp moom mooy lo moom mooy loxoom kon nag moom ànd ngeen koo xam ne tey jii jëwriñ la euh, li ko ëmb ci dëkk bi dara ëmb ko fi moom lii may sax mënoon na ko wax kon yi ñëw fii ngeen ñëw te may wax tey ci ndigalal di nuyu sëñ ak sëñ jiiri seen mi nga xam moom suñu sëriñ la nekk ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla kuy dimbali jaam la nga xam tey ji ci wàllu pajug wolof euh, wax dëgg yàlla moom it mu nekk jëwriñ bu baax ndax man xam naa ko dama fay dem dafa yóbbu sama njaboot ala ala ala jiri seen euh, moom it dëkk fii ci dëkk bi njaareem euh, fee Ndofane Ndofeen kon euh, ñi ngi leen di dalal jàmm di leen wax nii ñëw ngeen tey ci dëkk boo xam ne lépp njëriñ la rek mooy li fi wax lépp njëriñ la euh, kon euh, fii ngeen ñëw tey ñuy wax tey ci ndigalal sëriñ Ndam Diop mi nga xam ni tey ji mooy doomu sëñ Madlamin Diop Dagana sëñ Madlamin Diop Dagana nag kenn ku ne xam na ko ndax xam nga ni kooku mooy ki nga xam ni fu sëñ Tuubaa nekk rek moo fay nekk ak moom ba tey jii ah sëñ Tuubaa tamit keroog bi nga xam ne tey ji ñëw nañu njaareem Cheikh Moustapha ñëw na njaareem ànd ak sëñ sëñ Basiru bi ñu ñëwee tey ba nemmeeku béréb bi ba xam ne tey ji sëñ bi fii lañ ko mujj gisee ah ñu ñu ñu ñu jàng alxuraan te ay xasida sëñ bi euh, yëngul fenn moom sëñ Moustapha euh, sëñ ma Lamine Diop la wax duggal ci biir nga nga xool sëñ bi ci lu ci fu mu toll xam ni keroog moom moo jëkk moom sëñ Lamine Diop moom moo jëkk yem ci sëñ Touba dugg ci biir xool ko lamb ko ba xam ni tey jii sëñ bi kat euh, ñibbi na Touba mu soog a génn ni Cheikh ak ba ngeen agsi kon kooku tey doo moom dooma muy sëñ Ndam jóob moo ne jox ndigal ñu ñëw fii tey ji euh, di fi wax yar li leen leeral fii ci daara ji li nga xam ni tey mooy euh, ci bokk na ci li may li ma xam ci taarixu daara ji ndax fii sëñ mi ngi ñëw njaareem fii 1912 euh, nekk fële ci kër commandant bi waaw daan doxantu nag di ñëw yenn ci pakk bii di ànd ak sëñ jaxate nu mu tuddee sëñ Mbàkke jaxate di yendu si fii di dem sëñ Mbàkke Jaxate moom nettali na sama maam ne ko bu daan jógee fee ci feeñu ko téye woon ci kër euh, résidence turé ci wetu lycée bi di ñëw di dox fi boobu fi yëpp àll la dara nekk fi jumaa ji nekk fi kër gi nekkatu fi yoo xam ne seen sikkim day laal suuf di sëñ bi moom ngi ci gannaaw mais lu nekk rek bëgg na barkeelu ci moom kon tey waa Bichri TV bi ngeen ñëwee fii di barkeelu fi tey ci liggéey sëñ Tuubaa loolu war na ñëpp ndax ñi nga xam ne sax xamuñu leen duñu ay nit sax dañuy sàkku barke ci barke sëñ Tuubaa kon fii ngeen ñëw tey barke mën nañ sëñ Tuubaa lii tey ñu nekk nii muy rectangle bi ngeen gis sëñ Tuubaa moo ko rëddoon moo ko rëddoon boppam ni suuf ba mu daj euh, rëdd lii mu rëdd moo ci gën a tedd muy daaree kaamil mu wut ñaar fukki afi alxuraan ak juróom-ñett bis bu ne ñu wàcc fi juróomi kaamil waaw euh, nag sëñ mi ngi ñëw fii dëkk si fii Njaareem nag dëkk si fii Kër gu mag le janvier le 15 janvier 1913 ci la ñëw nag dëkk si am subaab may autorisation ma ñëw dëkk si fii waaw li mu fi jëkk def nag bokk na daaree kaamil ak sanc këram gi ak mbaar mu ndaw mbaar mi la fi jëkk def mbaar mee ngeen di gis ci pénc bi moom la fi jëkk def daan fa yendu waaw kon fii ngeen ñëw nii tey mooy daaree kaamil gis ngeen sëñ bi tam bëgg-bëggam yépp moo doon yàlla yonent bi alxuraan gis nga alxuraan tey gis nga ko lal bi ku tedd ki bi mu rëddee fii moo moo indil bopp indilu boppam lal bi fii ci daara ji fii ngir ñu ci warmaal kaamil di ci teg kaamil bi gaal googu ngeen gis ci kaw ci kaw lal bi moom mooy gaal gi nga xam moo ko ngàbbal boppam ngi ngi ci warmaalaat kaamil di ko ci teg kon nga xam sëñ Tuubaa bëgg bam yëpp weesuwul yàlla yonent bi alxuraan waaw kon nii nii def alxuraan kon fii mooy daaree kaamil sëñ bi mi ngi ko tàmbali 1913 ba léegi bis mu ne na sama kaamil yi kat tubaab ba nekk moo moo tubaab ba nekk France jàmm jam am bay tal dara sama kaamil yi moo ko may pël ba nekk Jolof nekk ci gannaaw nagam di sant yàlla jàmm jamu am sama kaamil yi moo ko may kon euh, kaamil yi mooy mooy mooy ndigal li nga xam tey moom mooy jàmme kaw suuf waa moom kon euh, loolu laa ni woon naa ko ci sànni euh, soxna si jërë ngeen jëf macha allah xam naa ne papa loolu am na solo lool fi nga mujjee waxee rek fa la ñuy fi nga daaneelee fa la ñuy jëlee ci fonk gi nga xamante ne bi ku tedd ki xaadim rasul fonkol na ko alquran waxal na boppam naan malakanil nuuru lisaan wal kitaab waxal na boppam naan malakanil uh, uh, furhaana wal funoona kon sëriñ bi dafa mel ni am na diggante boo xamante ne bi amoon na ko doon ko suuxat te suñu borom dogaloon ko ci digganteem ak alquran xanaa ndegam waxtu bi mi ngi bëgg a jot dañ leen di yeewi waaye laata ñu leen di yeewi dangaa tudd léegi suñu sang suñu bàyyi suñu Moustapha Lakram mi nga xamante ne bi ñu ko woowee moo ñu yabalal Abdou Diouf nga xam ne Touba la jóge ngir ñëw mën a teew see lii mu dëkkandoo ak yéen nekk koo xamante ne bi Bichri TV moom da koo amee njukkal ndax fépp fu ñu ko soxlaa mu teew ah, ñu gis ne it kër Serigne Afia mi ngi nii jàkkaarloo ak ak ak bërëb bi ñu xam diggante Serigne Afia ak ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba muy diggante bu sew lool bu yéeme boo xamante ne bi ah, lu ne xaj na ci xanaa nga tënkal ñu rek ci ñaari baat euh, ci Serigne Moustapha Lakram ci sëriñ euh, Afia ak ci pakk bi nga xamante ne bii ndax pakk bu tedd bii képp koo xamante ne bii rek xëy na teew nga fi am na lu ñu mën a jàngatee ci yow laata xëy na ñuy jox euh, Abdou Diouf rek mu mu barkeelu ci ay kàddu nga tënkal ñu rek loolu. waaw waaw Cheikh Afia moom it taalibe murid saaxil la ndax xam ngeen ne moom mook sëñ Tuubaa ñoo bokk benn waajur ci Zahir waaye sëñ Tuubaa dafa ne woon moom ak taalibe rek laay bokk ak doomu aadama. taalibe googu nag moom la sëñ bi gën a mën sëñ Cheikh Afia mi nga xam rakkam la ndax moom sëñ Tuubaa rakkam yi ko mujj ak doomam yeeg rakkam yëpp kenn ku ci nekk da nga mujjoon jaay sa njuróo jaay sa mbokkoo jënd kook taalibe ba tax na jumaa ji nga xam ne tey sëñ bi moom la jëkk rëdd daan ko daan daan ko bégg ci ngir boromam daan wax saaxali xëy law fii maa yomba maa saaxa xal ba yow wax loolu jan baa moom rakkam jooju sëñ Afia moom la fi jëkk teg mu nekk imaam di jiite jumaa ji kon loolu kóoluteef la ndax néegoo yàlla nga liggéey ko Euh, daj lu nekk nga daj ko ci jamono yi nga xam tabax jafe yomb lu jafe woon la nga tabax ko néegu yàlla ba mu noppi nga jël sañu affaire ni ko yaa jiite mbooloo mi jiit ñi ne ne yow laa teg jël jumaa ji teg naa ko sa loxo loolu sëñ bi doy na sëkk ci daraje ak ay ngëneel mooy jumaa ji la wax wala sëñ bi wax tamit nii sama euh, jumaa ji ñaan naa fi suñu borom ba nga xam ni bépp chey at boo nga xam ni nit indi ànd naag moom dugg ci jumaa ji buy génn buy génn lépp dana ko soppi lépp defal ko ay ay asanaat mooy li moom boobu jumaa ne képp ku fi dugg bépp bàkkaar boo fi indi booy génn dana soppi bàkkaar yi def na ko ay yiw kon fii euh, benn béréb la kon sëñ sëñ affaire moom noonu la fi nekkoon euh, kii nga xam tam sëtam la muy sëñ Moustapha Lakaram tamit moom it parce que foofu la fi taxawee di dimbali jaam yi di taxawu jaam yi ci fànn yëpp nag boo jaaxlee mu dimbali la boo amee aaju mu dimbali la euh, bo bo loo bëgg sa bi tamit sa diggante ak sëñ Tuubaa tamit lam ca xam mu jàppale la ci kattanu borom bi moom mi tamit moom moom moom sëñ moom moom moom moom sëñ Abdou Diouf noonu la fi nekk sëñ bi newu fii du fi nekk waaye taalibe bu ñëw te am soxla bu dee ci euh, bi dëkk ba la dana sol dàllam dem ànd ak yow ci loolu waaw bu dee ca mairie ba la bu dee ca police ba la bu dee tribunal fu mën a doon rek dana sol dem taxawu la fa ba sa aajo boobu mën a faju kon te loolu ba tey ci um, arrêt uh, ne bi uh, génn nañ daari kaamil ñu ñëw ci uh, garab gi nga xam ne moo di xëy gi nga xam ne fii lañ mujjee nemmeeku toogaayu ku a ki Cheikh Ahmad Bamba fii la ko magitaal bi mujjee ràññee laata muy ñibbi Touba ba léegi léegi ñu ngi ak sëñ Babacar Sylla ak sëñ Abdou Diouf ngir ñu jox ñu ay leeral ci taarixu euh, barab bu tedd bi nga xamante ne bii mooy garabu xëy gi kon sëñ Babacar xam naa rek nga euh, defal ñu ay leeral euh, ci bërëb bu tedd bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa comme soxna si nim ko waxee rek tey ñu ngi leeral fii tey ci micro Bichri TV fii ci Njaareem. Euh, garab gi ñu taxaw nag mooy xëy gi ngeen di dégg mooy garab gi nga xam ni mooy garab gii la fi sëñ bi bàyyi fi mu toll nii moo fi nekk ci garab goo xam sëñ Tuubaa bàyyi na ko fii garab gi tamit ngeen gis sëñ bi moom la def moom la mu doon def seere ci boppam Euh, bi fi dagalee mag ñi sëñ ma limi Diop dagana sëñ Kale sëñ Murid Saadix sëñ euh, ma jëmb la ak ñeneen ci ay mag mu dagale leen fii euh, ñu di waxtaan ak ñoom kenn def na seere ci garab gi neen garab gii de sàllaaw de maa ko maa ko jëmbat ci sama loxo bi daana ko ci sama satala waaw ba tey fii neen mu ni fii la jëkk ñeme meñ su àjjana moom ku tedd ki waaw mu ni garab gi tamit moo koy xamal ni yàggadiwu fii noo koy xamal ne yàgg di wu fi waaw mu ni ma jëmb nag mu ne dama leen ma jëmb dama leen tàggoo dafa am tukki bu sori moo tukki boo xam ni bokk nag tukki yi ma daan tukki waaw sëñ ma jëmb ni ah, bi nag ah, du ñu nangu nag tubaab bi du lu yóbbu fenn boobu def ni tubaab bi dañu feneen mu ne ko sëñ bi nag du dootuñu nangu tubaab bi du lu yóbbu jar na sax ñu jël bi waaw mu ni ko ma jëmb tukki bii de bokk nag tukki boobu ma daan tukki tukki bii nag boo xam yéen dootu leen ma gis waaye man fu ma nee naa leen gis waaw mu ne ko nag maa ngi doon jaaxle sax ci ku ma dénk alxuraan waaye yàlla xamal ni ma yàlla xamal ni ma ma dénk na alxuraan yow ma jëmb si la mu ne ko am ah mbàkke ma woo yaakaar naan tollu ma woon foofu sax mu ne ko ana xat bi ma la joxoon xat mi bi ma joxoon ndax moom ci daaray kaamil daa daan ñëw léeg-léeg mu jëw daaray jël benn xat mi indi ko bu amee diir mu jëlaat boobu soppiwaat beneen indi ko mu ne ko ana xat bi mu ne ko mi ngi fi euh, mu de mu indi ko mu ñëw indi ko mu jox ko tey sur asir bi mu ne ko tey sir bi nag boo demee na ko def juróomi bunt saa su ngeen di ubbi kaamil di ngeen jël benn bunt di ko ubbee kaamil di ko tëjee kaamil tey nag laa leen tey laa leen mujj jox xatmi mooy mooy mooy daale kaamil googu ñu jógee loolu mooy tey siir moom la ñuy xatmee kaamil bi saa su nekk kon fii la daye la si mi wax ak ñoom ñu leen nag jamono gi jamono yi naqari ngi seen kanam ku ji bugg mucc na nga na nga na nangoo muñ te doylu te jekki ga jekki mooy gàtt tànk waaw waaw waa fii leen ko waxee eh, mooy jamono ji xam nga jamono ji ko nangul muñ moom doo yàgg fenn ku doyluwul tamit saa su ne yaa ci ay jafe-jafe ndax bis ba ne nga gis loo lu rafet loo gis lu mu rafet rafet bis ba ne nga gisaat benn lu ko gën a rafet kon doylu mooy wàllu taalibe yi muñ tamit mooy mooy wàllu taalibe waaw kon fii la béréb bi ah, Blaise Diagne tamit ah, bi mu ñëwee tamit fii fii la Blaise Diagne ñëw fii la sëñ bi recevoir yoon ba Blaise Diagne bi mu ñëwee di seet fii boobu fii ngeen gis nii fii la sëñ bi toogoon nii maa ngi foto original bi nga xam fii la sëñ bi toog ñu jël ay siis tegal ko nii Blaise Diagne ak mu ànd ak tubaab yi mu àndal ne keroog nee nañ bi mu ñëwee ba waxtaan ak sëñ tubaab ak tubaab yi mu àndal boobu fekk na jumaa ji mi ngi soogee tompi sëñ bi jël caabi yi jox ko sëñ ma limit jóob ne ko àndal ak ñoom ñu xool néeg bi mu fi liggéeyal suñu borom dégg ngeen wax ji àndal ak ñoom ñu dem xooli néeg bi mu fi liggéeyal suñu borom kon loolu xam na ay 1924 la ak yu mel kon fii bokk na ci béréb yi gën a tedd ci béréb yi waaw garab gi tamit bokk na ci bërëb yi gën a tedd ci béréb yi waaw kon loolu mooy mooy taarixu béréb bi ci masala